signé par le maire l'autorité administrative à donc la wax rek dama lay preuve contrat est mais dans le contrat il y a des articles Moi, dinañu jël nini ñi mais tu biir clause aussi Moi li wax mhm. chaque année dinañu jox 40 millions l'institution bonne institution ban ban. attends attends la mairie. la mairie parce que mairie mon signifie. ok lu tax ñu ne institution. tubaab buy dugal investissement toujours dafay am souci de garantie. et de sécurité. Oui. Mon est d'accord. jox mairie bi. Mhm. mais mairie bi mon ko D'accord. jox population. population bi mairie bi ubbi compte. ñu ciy versé quarante millions yi. Mhm. loolu motax mané ma bul wax tak waaw maire mu ngi jot. depuis deux mille dix neuf ba fi may boobu loolu moo loolu ba léegi. moom laa lay tontu nii ci tontu bi laay ñëw nii. ma jox la question léegi da ne boobu léegi loolu moo fa nekk ba léegi mais est waroon am waxtaan yi waroon am jéem dindi problème bi est-ce que loolu am na jóge ci yéen. dama ne dama ne du du du problème la du problème. du problème. dama lay wax lii problème bi yëpp nag. macha allah dans les études. moo mm-hmm. a dit population déplacée. Mm-hmm. moo am population yi nangoo jóg ñëw. mu nekk lu sensible lu doy waar. am population yoo xam ne nee nañu du ñëw. Mm-hmm. je comprends leur attitude pour hmm. des raisons d'ordre culturel ça ça, conserver un patrimoine foncier hmm. donc lolo, dama leen koy nangul hmm. mais dans dans le protocole les 304 hectares sont réservés aux populations déplacées mais pas pas mais pas aux populations affectées par le projet d'ailleurs même le mot déplacé yow ci ngay insister ci la maire insisté woon foofu li ma si sous-entendre

est la résolution problème bi toll ban jafe-jafe ngeen am. pour mën a population. Pour nga xam ne ñoom population. déplacée waaw léegi li may leeral li ñuy wax ni waxuñu ko ndax Ass Malick de. non du tout non dama ne. Mhm. dañ ne cet argent ou ce protocole. est destiné aux populations déplacées. Mhm. débat bi dafa soulever wu pas ci mairie bi. Mhm. mais ca dëkk ba la soulever wu. bien sûr entre population. ñi considéré population déplacée ñoo moom mbir ñeneen considérer que c'est des populations affectées par le projet ci la ñu bokk comme niñ ko defee ci kër yi parce que boo demee ci kër yi ñii dañu am kër déplacé wu mais ñii dañu am kër déplacé wuñu mais seen kër yaa nga fa et loolu débat boobu bi mu jotee maire ne leen xaalis bi man lañ ko jox mm-hmm autorité là mhm. institution là yor mhm. xaalis bi du nitay ñew rek créer coow boucan ma jox ko bi mhm. organisez-vous créer un comité de gestion waaw wut ben compte co-signataire ou le village de Mbadat kesso Kesoxat dañuy indi un représentant ñu signé compte bi fi may wax ak yow nii la lan tey la 14. tey la 14 le 15 ma def virement bi maire Daphne, la que wax daf né indil ma les trois villages déplacés ñi le ñu mandaté ne ñii constituer compte bi nga ne fa lañuy verser verser bi l'argent est disponible. ba fi may wax ak yow ni te disponible. non dama né buñu won compte bi suba virement alors Ibrahima alors que le ah. maire. Hmm? ak ñun ñi ñëpp xam nañ ne maire mu ngi koy téye di ko di capitaliser dans un compte ok mais tey maire en tant que autorité mhm. du nit ay ñëw rek ne suñu xaalis mu mhm. joxe wala du benn village rek mooy ñëw ne suñu xaalis mu joxe ko il faut benn structure légale boo xam ne tey ñetti village à travers un PV ñoo naan ñun kat Kacilik Mbadet ñii la ñu mandaté mhm. compte bii la ñu ubbi versel xaalis bi fii mais ba vous may wax ak yow compte question ferme rek mhm. maire dafa wax ni. tant que consensus bobu amul population du ko yow nga mhm. man en tant qu'autorité, ban pour population pour am consensus ci lolu ñun point focal am de village Aliou pas plus tard que semaine passée. nga chef de village chef de village wu Kesoxat. Kesoxat. woo ko ne chef de village dañuy xaar ngeen yónnee ñu mandataire yi nga xam ne tey bu ngeen ko yebalee ñu dem crédit mutuel bu pour du ngeen paas yegg leen Jakarta ñu ñëw foofu ñu ubbi compte bi ma wax mère ni compte bi ubbeeku na code IBAN baa ngi ñu def pas plus tard que semaine passée kon maire il est dans les dispositions de libérer l'argent mais tey. ce qui est clair maire mënul ñëw rek jël xaalis bi sotti ko par la fenêtre beneen bi aussi comme yaa ngi koy la léegi maire mënul jël xaalis bi aussi jox ko des responsables politiques yoo xam ne dañ koy def seen programme de campagne politique aywa <laughs> euh, kon foofu leer na kon dafa mel ni kon population bi ñoom euh, seen ñoom ñoo ci des ah bu ñu déggee Ibrahima nu waxee kon dafa ñoom ñoo ci des euh, Ablaye dafa ni point bu leer na ah. oui acca kon ci benn benn tomb ah. am mais comme amuñu temps bëggoon nañu ah. am peut être que Friedera dala na am na si si si si kon RSE bi moom am na mais beneen bi li gën a am solo ci Friedera tey les populations dañu war a approprier wu compétence buy am mm-hmm. ñom ñu jël ko et tout à l'heure dans les débats vous verrez des gens yo xamné dañu nekkoon fenn mm-hmm. approprier ko ba jël créer lu bees di ko doxal mm-hmm. kon tay les populations ñom mom ñom mom fruita ah, nañ fa dem def apprentissage appropriation ba bu fruita di dem

Ah chaque année chaque année. ñoo scolaire Fruta koy joxe waaw ñoo koy joxe au moment où je te parle ni, mhm. Fruta mu ngi wara réhabiliter poste de santé et maternité bu suun. Ah, on a on a lancé même les travaux. mais ça, sànq wax nga abi aussi mi fay dugal non non non dama né ñaari ñaari compartiment dafa am bo xamné ne la. bo xamné ministère de la santé moko def. mu am complexe poste de santé. Mhm. ak maternité bu yem. Mhm. bobu Fruta réhabiliter les travaux vont démarrer la semaine prochaine. ok c'est bon un am na nak mhm. mhm. ci côté bo dafa ay mhm. euh, euh, logement d'hôtes Yo ci ci walu ci walu tiada dañ ko done surface bobu war fa maternité bu de type génération nouvelle. la fay def toujours acca léegi bu ñu ci benn tomb bi euh, tabarakallah xam naa ne moom dañu woon euh, une heure trente minutes la ñuy def <laughs> mais ak euh, affaire yi nit ñi soxlaa aussi. Mhm. moo tax affaire yi gën a yaatu noonu. am na benn tomb nag problème mu Abdou Aziz Diop dañuy xool ni daanaka dañu naan Abdou Aziz Diop sax parce que am na ñu wax ni je pense que madame Zack Mbaye Diop ñu wax ni moom prête non la ci mbir mi Abdou Aziz Diop bu ñu fàttali nag moom ancien ministre la ci régime Abdou Diouf wax ni am na fi presque tolloog deux cent trois hectares. Hmm? su ma jumul ah. effectivement noonu la demee. problème boobu lan la parce que cool yi bëri na ci wax ji bëri na ci tey da ngay dégg ñu wax lii suba nga dégg la le qu'est-ce qui se passe. ba suuf li ma la li wax nag ba suufu Kër Moussa. li ma la ci wax après am na keneen keneen maa ngi ñëw. mais kii bu ñu demee peut-être non la ay ancien ministre loo xam ne depuis ay 1995 ak yooyu. waaw li ma la ciy wax nii nag bu la neexee takk ko téere. waaw acca ko. Kër Moussa mu communauté rurale en 1990. Oui. Y'a waay yaa xam jaasi jiite ko. waaw ah. le temps ndem mhm. président commission démoniale. Mhm. ministre du budget. Mhm. Abdou Aziz Diop. est Dakar comme li ñuy wax Gouana les ministres allaient cultiver faire de l'agriculture. agriculture. moom it mu ñëw ñu ne dafa dafa bëgg -hmm mais il avait des points focaux dans la zone sud mun naa ci citer kenn ku ma gën a ndem si yàlla si sàllu bere siis mhm. kooku moo ko doon doxal digganteem ak borom tool yi ok mais Aziz bi muy ñëw daf ne nañ ko jox suuf mhm. dafiy def benn ferme agricole bo xam dina électrifier dina jël xalé yi ñu liggéey mhm. dina dina dina dina dina may nit ñi ndox dina defar yoon wax lu bëri mhm. am population yu adhéré joxé sen tool am ñu bañ parce que bo démé ci biir 203 hectares yoy am na ñoo xam ne joxewuñu ñu ko ñu ko ñu ko wërélé mais am ñu nangu joxé bi lolu amé vous savez <laughs> Abdou Aziz c'est un intellectuel mhm. ñu jox ko souf bi mu un plan mu fait ko délibération booba temps contrôle de légalité sous préfecture sax fait. préfecture moo Nous avons mu dougal délibération bi mm-hmm. ñu jox 203 hectares mm-hmm. délibération baa ngi bo boo xoolee kayit bi rek nga gis ni mm-hmm. signé par Yaham xam visé par le sous-préfet

boobu tax ana maire defe naa mu ngi mu ngi tëngéej wala wala wala wala wala wala Kolda. di jàngal di jàng di jàngale. joxoñ baaraam bi benn question. Mhm. es ce que c'est le maire Momar Ciss la joxoñ baaraam wala la mairie de Kër Moussa. waaw bu ñu nee mairie tey bu ma duggee sa kër. Mhm. wax seen waa kër boroom xel yi dañ naan sa papa. donc bu ñu duggee mairie Kër Moussa administrateur bi c' est le maire maire la wax. d' accord parce que boo fi doon ko doon doon naale. waaw d' accord moom laa lay wax. Mhm. mais tey moo tax ma ne la. Mhm. Euh, nos politiciens là. tey boo boo pour man. Mhm. am na nooy doxale nit ki day nekk partenaire bokk ak yow xeex bi. mais am na nooy doxale nit ki da koy def ennemi du bokk ak yow xeex bi. effectivement tey maire lii. il peut être que partenaire te ci développement je vais la dire nan la partenaire Aziz Diop bi j'ai 203 hectares mhm. Mansour six bi wax il est professeur en développement territorial mhm. mais xam na Souf mhm. suuf la ko affecté Il gën a pour nous désaffecter. parce que si il la désaffecté il faut au préalable faire une mise en demeure Madame, il faut nga wax nit ki maa ngi bëgg jël sa suuf donte man maa la bindaloon ne boo ko exploité wul ba deux ans dama koy jël. Mm-hmm. mais jox naa la tel délai. boo ci boo ci valoriser wul ma jël ko. Mansour xam na loolu. kon Mansour bu ne maire de Kër musa maire de Kër Moussa. Mm-hmm. xam na ne maire li mu mën a def pour jël suuf si mooy defal Aziz mise en demeure te def na ko. Mm-hmm. def na ko na ko Aziz xaaral rek xaar leen biñ ko joxee mise en demeure bi. mu indi ay machine mu ne day defar toolam. Attendez. Ce que je veux Imam Imam Ousseini, il n'y a pas arrêter arrêté. Ce que attends, attends, attends. Attends, attends, attends, Aziz est vers 2000, 2000, 2000, 2000, 2018, 2000 qui, n'est pas exploité c'est parce que nous avons mis en demeure. Les populations ne connaissent pas fait que nous avons de Mais Aziz, ce c'est un document juridique une valeur juridique de la délibération la mm-hmm. cour suprême ah bon ah attendez professeur ils ont dit voilà Malik, As maire désaffecter souci mais maire pour mu désaffecter il am préalable Si il faut que bind Aziz néko Aziz la délai sangam. Mm-hmm ma jël ko. loolu dafay fekk nit deux ans. non non non attends. ko ak deux ans non non attends attends dama ne. Hmm. wax nit ki ne boo exploité wul suuf bi ba mu mët deux ans. Hmm. ma nangu ko ça n'a rien à voir ak mise en demeure. libelé bi ci suuf lañ la hmm. naan boo ko exploité wu pour deux ans dama koy jël mais le texte normal dañ naan buñ la koy jël euh, ci deux ans yi au préalable d'une mise en demeure. maanaam mise en demeure bi mooy jiitu maanaam booy dugg ci kër da ngay fëgg maire dafa fëgg Aziz Aziz indi ay machine def détournement d'objectif maanaam il faut le dire détournement d'objectif mooy mu ne day lotissé tool bi jaay ko maire ne ko maire ne ko loolu mënul nekk mooy détournement d'objectif bi baat olof laa la bëgg a tekkil. waaw d'accord saa li mu jublu woon ci la mu waxoon départ ba mu ñëw bëgg def leneen. voilà dañ ne dane woon day bay. waaw mu ñëw mu ne day dagg. day ay parcelles jaay parce que moo ko moom. ñaari objectif yi bokkul. maire bañ population yi bañ. moy la situation normale. moy moy moy ko xaaral dama yow dimbali euh maire bagnna population bagnna est-ce que gënu won neex man dem naa ci ay conférence presse yo xamni ñom ñoko def est-ce que baaxul won ñu melni yow ak ñek nekk ay ay lieutenant euh, monsieur le maire ànd na population ci xexu wu gis leen. wa mom la la wax ne la tay bo bëgge ñu bokk xex wa dañuy yëkëte ndo di dóorandoo. Hmm. bo bo boo moytul ñun ñaar dañuy doronté bu ñu yëgoowul ñak yëgoo bobu mo ci dess parce que tay li maire defu ko kon gisuma fu ci maire taqe. tey maire li mu mën a def ba delloo ko ci population mu ngoy def def ah. moy Aziz wara def mu ne non bu munul nek indil ma autorisation de lotir bu wane né ministère jox la pour nga liggéey. population yi né non suñu bayyi ñoo la ko joxoon mais yow li nga waxone bëgg def li ñoo bañ. ils ont raison la solution ci ci Abdou Aziz solution bi moy tay waxi njàccaar la lay waxaan. Ah. luy njàccaar boo defee lan mooy tu as ne <laughs> de. mise en demeure. tu valoriser. Hmm. après nga nga évaluer. l'évaluation l'évaluation des mises en valeur l'autorité administrative moo Et Et évaluer ndax matul. Hmm. mais si on fait defal mise en valeur nga ko maire ne du bu population yi ne maire ñun dañu soxla le souci pour dëkkuwaay. Mhm. maire ne amul problème. Mhm. première djego bi maire ñëk a def ñom ñu premier koy wax kérok tay rek ma ngi dégg Elentine. moy mhm. le ah. protocole de Sali. Avec avec gouverneur ak yoy nous ñu jox population yi 100 hectares ci biir ou Aziz. ci biir bi. au moment où je te parle tay toute la population de Kessohat. une partie catholique une partie qui euh, euh, euh,

Ah, il faut le dire. <laughs> mais Aziz il a un document béton. Mhm. si tu le gères pas. Mhm. d'évoluer, évoluer si niveau d'évolution egg kon mbam boko dang koy jatang mais rek mais du daw population ñu ngay daw di occuper yow ni Aziz amul et je dis bien ci biir toolam parce que daf ci am délibération et pour exemple au moment où on a délibéré Aziz 3, 304 cent hectares dinaa la jox ben exemple ci même délibération boo xam ne borom mu ko occupé ba léegi nit ñemewu faa dugg mooy maire Ngati Ndiaye Ngati Ndiaye xodd ba xodd ci même délibération bi la am mhm. est-ce que ñeme nga faa dugg non donc population yi bu ñu ñemee dugg fële di def mhm. nous on comprend maire il comprend il joue le jeu parce qu'il sait que les populations ils sont légitimes. Mhm. Moi, le président wax léegi maire mu ngi pour delloo population yi seen suuf. Mhm. même bu que c'est dans l'illégalité Quand tey bu Aziz on est en train de le gérer. mais on on laisse la population ñu occuper leur xam ne tey. Oh, wax wax nga solution ci comme temps bi damay ràmbal fi mu dool nii euh, Ablaye am cas encore. donc ba tey kaw euh, Abdou Aziz loolu lañ ci wax Aziz même bu fekkente ni yor na kayit yu ko comme ni ko des documents béton. Uh-huh. même bu fekkee yor na ko amul légitimité parce que bañ ko joxé valorisées pour valoriser ko ba ni koy waxé ni wa non non xam nga xam nga am entre texte. Uh-huh. ak pratique bokul, tay collectivité locale. Uh-huh. li population mën collectivité locale mënu parce que institution le démembrement état la. maire bu waré attaquer Aziz mënul jaar fudul ci loi officielle mais population ba mu ko neexee par des pratiques c'est un plaidoyer ba mu réussir lu mu donc c'est la différence bi maintenant c'est un cocktail day tax boisson bi gën a neex. lan moo tere ngeen am esprit de dépassement collaborez collaborer la population. non non non non non attends attendez je te dis il y a un sentiment de rejet. Ah tey Ablaye bu ma bëggee dugg sa kër. yaa ma koy permettre ma dugg wolof daf

premier partenaire au sàmm sa mhm. parce que maire mooy sàmm seen voilà mhm. wolof la lay wax de mhm. ñom dañ né Sam sa mais maire mo gëna parce que mooy sàmm seen momel kon ñaar yoy Sam sa moomeel ak c'est seen momel dañu wara and di diso di xàcceendoo di dorando pour solution mon âme am fan mo amul litige ci Sénégal regardez tableau classification bu ministère de de l'Intérieur fan moko amul wax ma mais la différence de cœur Moussa c'est pas la mairie moo indi litige mhm. par rapport ak ay nit mhm. mais c'est entre des particuliers d'accord mais mairie do mës a gis fu ñu mairie mo indi litige foncier musul am boko ko rek boko amé amee indil mako ci table d'accord té lool liggéeyu monsieur le maire là d'accord alors on avance tuuti parce que li ñu dese ci simili daanaka bëri daal mel émission ni nga wara war <laughs> dañu bëgg ñëw parce que fuñ déggé Abdou Aziz dañu dégg Ndiogou Ly Abdou Aziz Ndiogou Ly voilà Ndiogou Ly c'est c'est l'enchaînement de de Abdou Aziz parce que Abdou Aziz bi mu jotee trois deux cent trois hectares yi mhm bi muy def bi muy mise en valeur dafa jël ndóo njóogu comme promoteur hmm. njóogu ne ko lo may fay mu ne vingt deux hectares njóogu jël 22 hectares yoy bu ko lotissé maire ne ko non le lotissement sera porté par la mairie mais pas une personne individuelle arrêté ba ngi 22 hectares signé par le ministre Vous xolé arrêté portant autorisation de lotir d'un terrain non immatriculé de 22 hectares 50 hectares

Mansour Mansour journaliste mon ne maire jot na 4 4 jox nañ ko xaalis venant de Ndioguli du deug Mansour une information il faut la vérifier avant nga koy wax. vous êtes un grand journaliste je pense que ce Serigne, sëñ euh, ah, sëñ Moussa sëñ Moustapha Sy jangalu la lolu. Mansour mom dina am temps mu man a tontu ci lolu ah. voilà ah, Ablaye ci même Ndioguli bi kon néna mom monsieur le maire xamul Ndioguli kon du ci sori. non xam nga tay da ngay da ngay déglu Buñuy wax xamul moy reconnaître ko ko wara porter lotissement mais bu dee face to face ni maire xam na mais tay bu ñu xamul moy ci keuyit on reconnaît pas Ndiogouly on reconnaît un lotissement porté par la mairie de Keur Moussa mhm.

wuli ak sour ñoo ko waroon ak 10 pour dañ ko waroon jox tamit euh euh maire moko moo ko jël mais problème bi foofu mooy population bi nee gis nañu ne am ay nit ñoo am ñi ñew di di jaay am na ñoo xam ne ñu ngi di mo xam seen terrain fa la fété mais ba légui ñom population am ñu ne ñoo waroon jaay wala ñom xamuñu terrain yu gis gisuñu terrain xamuñu euh, reconnaissance lolu da moy problème bi foofu non attendez mbir mi ni mu démé moy li ma leen wax sang le cabinet Koyka bi mu ñëwee daf né 150 hectares yi 75 yi c'est réservé

bi ñu ay tolu jambour lañ leen jox 150 cinquante ay tolu jambour la ci mbadat ci ay tolu wa wa wa lelo wa sanc wa leen lañ conciliation yi ñu nañ leen appliquer barème de de de de compensation ñu appliquer barème yi population yi gis ne Nous ñu machine xul promoteur bu ñëwee ñu tal machine yi ñu dem vers la négociation bi ñu négocier Mère Nélène, si buñ la buñ tu as tu as ou 300 000. mais defe naa benn parcelle viabilisée bu am notification bu jar 2 millions mo ëpp lool population yi ne kon jox pourcentage les populations d'accueil bokul ak les populations déplacées moy ñi joggé feulé les populations déplacées mmh. mais ñi joxé seen suuf moy les populations d'accueil mmh kon tey ñooñu ne nit ñi di amee ci suuf sa ñun tamit noonu la les populations déplacées am 30 moy ñi joggé kesso jógee Kesoxat Kàccili les populations d'accueil mi ñi joggé Tuuli Lelo sant Séeréer Leen et am 30 ça fait 60 le promoteur bi koy 30 du 90 lu dess du 1. 10 pour cent oui. 10 pour cent. waaw ah. foofu peut-être dina dina je me réconforte parce que ça réponds réponse dina au fond non c'est l'administration centrale bi nga xam ne tey avis technique moi qui moi porte le lotissement c'est l'administration centrale manam le guichet unique mm-hmm. ou le comité technique régional moi l'a di 10 mais pas la mairie. mais non non non non non non c'est la précision de taille non dama c'est la précision de taille. Mhm. parce que les Japonais ne mairie pas ko alors que mairie. maires, xoolee kayit mairie sax signé wu mhm. c'est le receveur des domaines qui ko signé. Mhm. loolooy bi. maire du ko c'est l'administration. si si vous regardez non non non dama mais dama ne la c'est des documents confidentiels. un receveur des domaines mënuma expulser ay kayitam fii. mais le le le comité technique régional. mënuma la wax ne la diw personne am na diw nii am na diw am na mais bu ma la nee administration. Mhm. mais mën nga mën rek dal mairie bi amu la précision de. Ah, ñu dem ci benn tax gars yi ne ma temps bi jeexal. temps bi jeex na mais yokk ko. Ah, yokk ko rek amul problème on gère. <laughs> d'accord ñu dem. ça suffit yokk nañu plus de am na am na question yu gën a am. ñoom ñu ngi ñu ngi ñëw voilà dama bëgg a dem directement ci kaw QVS li ko opposé ak euh, li nga xam ne mooy Nouvelle Ville mu benn nekk benn société bi nga xam ne moy am foofu ci keur Moussa mu nekkone benn forêt. wax mhm. ni actuellement c'est c'est déclassé hein comme comme vous l'avez dit 25 hectares yo xam ne mu ngi bokk ci biir commune bu keur Moussa. comme vous l'avez dit qui QVS dafa nekkone forêt classée. forêt classée waaye. c'est c'est terminologie bu am solo la. Mhm. forêt classée la won gestion forêt classée kan moko yor eaux forêt. Mhm. ñom ñoo fay def li ñuy woowee contrat de culture. Aux et forêts de société privée, c'est un démembrement de l'État qui est chargé de gérer la ressource forestière. Aux et forêts boobu mooy li ma donné wax il QVS y avait deux ou trois responsables ils ne Van avec les Hollandais. mais ñu ne fa di xool en termes de capacité de production mais en termes d'investissement ba ñu ber seen daara foofu laa doon wax waa site de recasement mhm. war nañu approprier leen pour bu ñu le poussé ñu dem mhm. ñooñu créer mhm. QVS dem gis eaux forêt eaux forêt defal leen contrat de culture signé par le directeur des eaux et forêts allez-y rapidement yor nañ ko ci yor nañ ko ci dossier yi hein? ah waaw eli un démembrement de l' état bu signé état moo signé nag ok avons jox 185 hectares. nous mhm. dem ba 2023 nouvelle ville. Mhm. président Macky Sall décret. Mhm. déclassé. forêt classée bi. am une partie. a daf nouvelle ville ok enquête de terrain ils n'ont pas bien informé mhm. le président de la république mhm. parce que biñ koy informé Waron a ko wax ko mhm. fi nga de am occupé comme ça président avant muy le décret nous avons géré la situation. Mais ils l'ont fait signer. Ce qui fait il y a des occupants, il y a, 1 600 y employés, il y a 000 par jour. Voilà, il faut que nous avons parce que nous avons fait parce que nous avons un contrat pour 25 ans, nous avons fait Mais nous avons en 2019, nous avons une délibération, nous avons fait un contrat pour faire un usage d'habitat. C'est délibération, ça, décret présidentiel. C'est un décret la, en réalité, comment ça a commencé à non non non 85 hectares il est allé plus loin parce que man mi dem naa fa mission. Uh-huh. le président. buy jël décret dañuy titrer place bi. Uh-huh. d'ailleurs loolu moo tax ñu am gain de cause ah. bu xesee un titre. et d'ailleurs loolu laay lancé sama mbokk beaucoup à Moussa le titre foncier c'est un droit privé. Bon, xam tay, tey bu ñu ko doux? tudd. donte borom daf ko sàcc. wala daf ko randal bu ñu ko xesee tudd c'est fini mënatoo ci dara.

bi ñu demee bi ñu demee tribunal tribunal ne tribunal ne nouvelle ville yéen a moom mais bu ñu xoolee ajjuma yow yow yow boo boo ci ci APL boo signé damay jàpp ne engagé na Palor TV engagé na Kooma TV kon tey donc tey bu Eaux signer un démembrement de l'État engagez l'État du Sénégal maintenant ñiy def enquête de terrain yi. Mhm. ñoom ñoo war informer l'autorité centrale ne ko. fi nga war def décret. lii moo xew. Mhm. erreur la. ci erreur la maanaam foofu. maire du ci dara. du l'État du Sénégal et un privé. man li ma jàngat. Euh, ba <laughs> émission bi jeex maire du ci dara. du dara. Ah, forêt classée. Ah. benn décret présidentiel ana compétence su maire. Ibrahima man suma ma sa wax da nga ñëw pour laaj ne lii ñuy tudd QVS ak maire doonu ci dara mais je pense que li ñu dégg yëpp index wu ñu maire bi joxe na fa nang wala joxé na ña fa tudd yëkkate tay moy mooy ñako yoré dafa liggéey. Mm-hmm. li ñu joxoñ maire mooy li nga xamné am nañ ko te sa njaboot di fa yëngatu ko ba ñeneen ko ci la attendez attendez attendez foofu laay jëma ah. xam nga tey la wax au début. bu may développé damay développé ci problématique bi. action menée par le maire. bu gain de cause. Mm. c'est l'intervention du maire en dernière minute. non non non bul wax dernière minute. non non non attendez non non attendez attendez Attendez. ne. non non attendez attendez dama L'oudoul, sa compétence. Ah. L'oudoul, sa compétence. Mm-hmm. il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mm-hmm. parce que d'où sa compétence hein, mm-hmm. c'est l'état central qui décide wala yeneen wala justice etc. mais maire def intervention ba directeur de l'urbanisme de arrêter les travaux. de la nouvelle ville. Ngane, ngane, c'est en dernier. non non non erreur bi fan la c'est-à-dire xam nga fan la problème bi nek non non non attends erreur non dama ne xam nga tay lan lay wax dama ne bu erreur amé mhm. nañu def le distinguo nous responsable politique suñu couleur bu mu bu mu ñu téré wax li nga xam mo xew mhm. mais dara xew na rek xaaral ciokas ci maire pour am ben discours politique bu ko yakal mhm. lolu lolu ça tient pas la route kon tay QVS maire la ci wara def ci intervention mu ngi koy def ci fa mu ko war a defee ci niveau de responsabilité bu mu toll ba mu am ci gain de cause tey ba QVS kenn dëgër piiru leen. Mm-hmm. et plus grave boo demee QVS. Mm-hmm. li tax mu yeex dinaa la ko wax tey. ñun yàggu xam ne ci Kër la le rapport le rapport de l'ANAT est là. yàgguñu ko xam ANAT. Mm-hmm. beneen bi waa QVS bi ñuy dox seen projet bay ñëw ba fii jas la ñuy waxu mhm. waxuñoo keur Moussa. keur Moussa mu ngi dugg en dernière minute ci dossier bi té mo régler question bi. problème bi moy et keur Moussa et et keur Moussa et pour maintien wu QVS foofu parce que les conditions pédoclimatiques foofu nit mënu fa dëkk. foofu bo fa démé ba fi may waxee ak yow ni di nga fa fekk napp bu taxaw. ça c'est clair benen fofu dafa nek benn source d'influence bo xamné ci bassin versant bi alimenter le lac Tanma fofu lay jaar alimenter tiawel pour l'élevage de de la zone mhm. kon tey foofu ñu dëkke ko du avantage wu Kër musse mhm. mais ñu def fa béy waxuma au-delà de la population je parle des questions d'environnemental très bien très bien euh, euh yaakaar naa mën man nañu taxaw ñëw ndaxte dans dans déborder carrément mais ñun xamone nañu temps bi ak li ñu unité ji mom dina génn les situations parallèles hein

Euh, suñu commune loolu tamit si am na nañu ci responsabilité yéen. waaw du bul ko waxee responsabilité ah. mooy li ma lay wax nii coow li xeex bi mhm. dañ ko war a bokk. mais li am biir Kër Moussa xeex day taxaw nga jaar fële eh, di xeex bu wéet ci xeex bi nga ne noo mairie bi nga ne noo maire loolu paradigme boobu la ñu war a changer bu problème taxawee na acteur yëpp daje. ñu summi suñuy mbubu politique teg fële parce que bu politique jotee on va le faire ah. mais Ibrahima man baal baal ko yow yow ni ma la xamee yow ni ma la xamee pour man waroon nga mën a dox yow li ngay wax ni ay xeexu politique yow ni ma la xamee ak ni nga amee relation ñeneen ñi pour man waroon nga mën a boole ji bu loolu mën rek non non non attends attends dama ne dama ne du ñuy du ñuy du ñuy du ñuy root ñooy ñi bokk teen bay laxasooy goj mhm. xaw ma ndax dégg nga ma déet du ñi bokk teen bi ñooy laxasooy goj ñun ñooy laxasoo goj ñiy rootandoo da ngeen rootandoowul loolooy seen problème. voilà kon rootandoowu leen. waaw que boo demee di rooti fële. Mhm. ma rooti feneen nan la mhm. ñuy laxasoo mhm. kon tey dama ne. pour man problème yi initiative am na amati. mais bu bu politique jotee rek paf kon tey loolu ngay wax je suis d'accord mais tey <laughs> ñiy rootandoo rek ñoo mën a laxasooy goj maintenant problème mu palal ah. palal ñaari ñaari affaire moo ci nekk benn affaire centrale moom la ñuy wax léegi connecteur logique bi. Mhm. mooy boo xoolee statut suuf sa rek da ngay xam. Mhm. palal forêt classée la. moo ko tëj fa seen terrain football ya nekk. waaw forêt foofu la commencé. fa ñuy football seen terrain fa mu ne. Mhm. foofu ci biir forêt classée bi la. état bi bi muy déclassé forêt classée bi déclassement bi dafa bari. fu mu fu mu jaar yii dafa dem ci ay zagu Kër Moussa mooy problème mu mbuurkat bi. yii dafa dem ci ay projet communautaire mooy bi ngay wax góor gi si Dieng. projet communautaire la boo xam ne tey. Mhm. moo gën a sës. Mhm. am fu am am am am kii am usine cimenterie Cimaf ci ginnaaw. Mhm. yooyu yëpp nag. mun nañu wax léegi zone d' extension Palal biñ ko déclassé. mais avant ñu koy déclassé kenn waxu ko. wala avant ñu koy déclasser war nañu mëna def demande bi motiver ko justifier ko pour lolo. mais l'État central en collaboration avec les eaux et forêts ñooy décider pour un déclassement de la forêt classée mais déclasser nañ ko maire la mu ci def maire gis na né fi palal fi lay yoko et ñom ñu ngi wax problème terrain football mhm. maire mo sol tankam mo sol dalam dugg ba ci all ba dem gis le représentant de Gorgui Sy mhm. mais cette bande là ils mhm. leen ko déclassé mais ne leen ko jël parce que le terrain palal yi là lay ne mhm. tout. tout, y a un petit village peul. mu village peul bi du fi parce que ñi ay nit le yu ñuy dund kon bande bi ba egg ne mënu pas ko pourtant Gorgui d'accord, Dieng daf ko d'accord rafetlu ko. Mhm. terrain yooyu dama le plan B, parce que c'est toujours confidentiel. mais c'est bien matérialisé là-bas. Mhm. les terrains football de Palal donc Palal maire jël na en compte. Mhm. maintenant li moi, le président de la république wax. la ñu cëral Kër Moussa. bu bari <laughs> Mais, mais mais mais mais mais priorité aux, populations impactées par le projet et population populations révérentes. Lolo, Muno wax benen dëkk budul palal mhm. ay waral Si même lancé waral bi ma dem dem palal bi président maire 25 parcelles la jox et pour votre information ñu bari ñu ngi naan maire nan la def parcelles parcelle parcelles yi maire bi mu ko jotee daf ne man xaw ma nan la koy def mhm. président commission dévoniale defal décharge dencal parcelle ba keroog may xam numa koy def mhm. parcelles ñun ñoko 25 na non dama né 25 nan la ko maire di def les conseillers rek ils sont 60 ah. kan ngay jox kan ngay et je vous dis pour votre information chaque conseil les opposants ñoy ñëk wax ne parcelle parcelle parcelle maire mënu ko sédélé donc c'est-à-dire dañ koy demander pour ñu séddale ko. pour ñu sédélé ko maire ne du ma ko séddale mënu ma ko séddale. donc tey parcelles yi mu ngi commission démo domaniale denc di xaar nan lañuy def maintenant fofu lañuy saluer la visite de, du président. Mhm. à ce que mu corriger disparité yi am. buñ né Kër Moussa. Mhm. moo yore ZAC yi ëpp te pour votre information. Mhm état bu la bëggee mbengeeñ mhm. da koy tuddé ZAC et c'est dans l'exclusivité de la gestion du ministère de l'urbanisme mairie amu ci yone mhm. mu tuddé ko ZAC kon affaire bi jall na ci bët dem mhm. keur ci dara et en pleine inauguration le maire ne ministre de l'urbanisme on n'a pas été impliqué bolé wuñu ken waxuñu dara c'était clair nañ kon ana l'implication du maire

je pense que war na un débat scientifique. vous êtes prêt pour un débat de confrontation. non non non attends ma taaj ah. non non d'accord, d'accord. Pas problème. amul problème. Mm-hmm. Mm-hmm. je pense que moi je le respecte beaucoup hein. Ouais. parce que c'est un professeur. Mm-hmm. et tei pour moi, il y a beaucoup de bu koy wax dafa a justification. palal je suis d'accord que il avoir un plaidoyer fort mais on a amul étude d'impact dañ ko def ci salle étude d'impact Amna. na. ba c'est-à-dire xam nga tay tay suñu non non non attends attends non attends attends suñu débat bi trois personnes def. est-ce que du débat de qualité. ce c'est pas la contenance qui fait la qualité. Mm-hmm. mais c'est la représentativité. Mm-hmm. dama les populations impactées par le projet. nous mm-hmm. fa nekk j'étais présent. comme de noir, non attends rek lu ñu wax hmm. fa usine ba sampo du mairie borom usine ba daf ko jënd une borom tool bu dëkk ca dëkk ba ko war fa def usine du mairie de d'exploitation na y étude d'impact bi non non attends étude d'impact bi def nañu enquête au niveau des villages kon xam nga mairie hein? def une enquête dans les villages impactés Ce leen woo étude soog restitution parce que étude d'impact non lay démé ah enquête de terrain am restitution ci restitution bi ci la population est amee lu ñuy ci restitution bi ci le comité scientifique bi di tok population population yi l'ensemble des préoccupations yi ngén am comité scientifique bi jël nako en compte mais tay bon nee usine bi Réine Nyari quel est le rapport médical quelle est l'autopsie quel est le certificat de genre de mort qui atteste en mm-hmm. Mansour je pense que Lolo, en tant que scientifique <laughs> question hein? non non attends mm-hmm. question mm. quel est le rapport gynécologique qui le montre mm-hmm. au niveau du district sanitaire de Pout je pense que Tes taux de toxicité biñuy wax ci usine batterie à plomb il faut que mu egg benn taux bo xamné ne day dem ba dugg ci sa deret pour soog a indi maladie mais lolo, ana étude bu ko démontrer moi je pense que Mansour je pense qu'il faut aller vers un plaidoyer fort avec le maire avec l'équipe municipale avec l'ensemble des acteurs ñu xeex ba usine bi jóge fa mais bu ñu wax. loo xam ne tey Ibrahima da nga bëgg taxaw ci posture yow ñoom li ñu wax ñoom dàpp seen seen conférence presse seen ñaari sorties ñu def yëpp da nga jàpp loolu ñu wax noonu yeeyu la yow. non yeeyul kenn. non yow laa yow yow non dama ne yeeyu ma. Ah. yeeyul kenn parce que tey Ibrahima de bu nee rapport de présentation mu ne mu ngi nii. Hmm. mais man Ibrahima du ma ne. Hmm. ñaari nit dee nañu. Hmm. te usine bi moo leen rey te wanewuma un document qui atteste que. parce que tey tu parles à des à des yoo xam ne tey ils sont parce que tey bu ñu nee nit dee na rek mm-hmm. lu tax nit bu dee ci dëkk bi ñu yóbbu ko hôpital ci dëkk bi la dee de ci néeg bi mais dañ ko yóbbu hôpital hôpital bind ne man kat ki ma gis nii dee na mm-hmm. lii moo ko rey kon usine fi mu nekk amul loraange pour ñëw ay njaxat non wañu waxuma loolu xam ah, nga ah, tey bu ñuy non non attends loraange wu dama ne boo ma dégloo ah. dama ne usine boo gis mm-hmm. gis nga li ñuy def nii sax am na loraange mais loraange bi ban mesure d'atténuation lañu jël. Mhm. loloy wax ji. buñu mhm. démé bu sétlu né mesure yi ñu jëlone adapté wul à loraange yi. Mhm. ñu def un plaidoyer fort. mais ci plaidoyer bi buñ ci def ay branche politique yo xamné ne dañuy bëgg am un sursaut politique pour naan usine njaxat usine njaxat usine njaxat. rey na nit fi def na non nañu xol quelque chose d'organisé parce que man Kër Moussa fofu la koy lancer appel lu xewati nañu xool ñan ñoo war a sans coloration politique ñu woo suñu presse bu def le bu rafet bi ñu travail, ñu organiser wax lu ñuy wax pour pour influencer qui war a jël décision parce que dans ces genres dusine là de type classé am na ñuy joxe cutis bi ministère de l'environnement moo koy joxe c'est pas la mairie mairie xam nga lu mu ci am maire ñun kat soxla nañu def suñu étude d'impact tel village et tel village la ñu impacté convoqué ñu leen ñu ngi war def restitution étude d'impact bi est-ce que am nga sal abal ñu sal da nga wara a parce que yow yaay autorité bi Etc. Etc. et cetera maire loolu la ci am maire limu ci amat moy mu am des des personnes ressources manam des conseils, wala mom ci bopam mu ne man kat usine bi ragal na ci li ragal na ci li ragal na ci li le comité scientifique jël ko en. ndax ndax loolu defoon ngeen ko. loolu def nañ ko lola wax loolu def nañ ba ngay gis ni plomb bi amul danger bi nga xamne fofu lañ ko yóbbu. non dama ne non dama ne ñun lenn lañu wax nous on est des profanes. bi ñu ñëwee dañ né ñun kat usine batterie bi gis nañ né bërepp sangam la nekkoon toxal nañ ko bëgg ko indi fi ñun japp nañ né amna na bi amna am bi mais le comité scientifique bi muy répondre dafa indi des débats techniques yu wone né li kat li ngeen ci ragal amul wala li ngeen ci ragal ni lañ koy faje et cetera lool moy lool moy lool moy débat de de de de d'audience publique. non parce que bo gisé question bu ma insister ci touti mhm. amna fi ñoo xamné invité woon leen ñu déggoon jaxat. ñett la woon kenn ki bokk woon ci plateau bi keroog bi ma leen gisee laajoon naa leen kenn ki le préfet dafa doon liggéey ci biir usine bi bi ñuy ñëw la fois passée dañu waxoon ne moom yàlla dogaloon na génn na ah la doon liggéey deux mois maintenant yow mooy est-ce que le fait que doon liggéey foofu yàlla dogal mu génnee fa àdduna est-ce que réellement plomb boobu nga xam ne moo la doon liggéey moo ko rey nga doon laaj certificat de non non non man réeroo ma ak bu demee ba joxe benn wax surtout de ce genre xam nga tey man weddiwu ma ne deewu fa de weddiwu ma ne plomb mën na ko rey mais dama ne mhm. ana l'élément de preuve bu tax ma Mansour war a taxaw ci télé ne kii lii moo ko rey parce que en tant que scientifique man bu population waxoon loolu walla keneen mhm. du ma ci wax mais Mansour laa wax tel que je le respecte bu waxee dara scientifiquement na ko eh, justifié. très bien suñu temps jeex na te am na point yu des. Euh, lay dem rapidement hein. juste le cas de Filfili parce que Tommy, mi jógaat aussi. bon le cas de Filfili c'est ça le cas de Filfili. c'est va naa Baye da nga ñu jégal ah jël deux minutes <laughs> le cas de Filfili c'est un titre foncier. te foofu lay il broché a yeneen titre foncier yi. titre foncier dafa am une spécificité. Moi, quand le titre est annoncé mhm. c'est irrévocable inattaquable mhm. et lolo, mhm. à bon faire un plaidoyer il n'y a qu'une réforme foncière que je mën a régler wala nga def médiation ak propriété bi loolu C'est dal filfili loolu moo dal le titre foncier de Sagnofil Sagnofil effectivement ouais. Lolo, dans le titre foncier de Serigne soit nit ki dafa sàcc wala fi ne titre ba yem na fa yemu fa buñu xesse xesee wax titre bi c'est fini damay commencer Il y avait un certain madame Fall buñu joxone ben usine fof mu jaay ko la famille mboup mm-hmm. la famille mboup titré c'est les nouveaux titres mm-hmm. droit réel baa ngi parce que bu né droit réel rek mm-hmm. c'est le titre privé et y a que le conservateur foncier

raisonné ko pour faire un consensus par rapport à ça mais bu ñu nee maire fii maire fii maire du compétence am loolu c'est le fil. et Filfili c'est les anciens titres boo demee fil titre bi c'est 21 65 bu ñu 21 65 boo ñëwee fil Filfili 15 16 55 c'est les anciens titres qui sont nés après les indépendances, après vers les années 60, voilà, après la réforme du domaine national bi. parce que domaine national bi a initié initié. initié dafa six mois. mais qui veut bëgg titre Et, malheureusement, ce qui étaient dans les grandes agglomérations de Dakar à ils nous avons information parce que euh, radio et télé, il faut le Mais ils sommes dans l'Albi, nous avons information. Bi. Si mois yu weesu ñi titre quelques titres c'est des gens qui étaient en connectivité avec wa barni Ou la la la famille Lebu, ba titré sen titre faussé fil bi. Yoré Diallo xam nga Diallo xam nga ko bu bu ba mu dé ay domam di ay ci gis titre kon motax bu pour support position bu fa maire def. Mhm. c'est pas vrai Mansour. Mhm. dafa yewu ñu ne ko titre. Mhm. maire dafa yewu ñu ne ko titre ñi da ngeen jekki jekki ñu leen titre. fekk wa Sañafil buñu xamone ne fofu titre la duñ fa samp seen armel. ñu jaaxal ne titre la terrain football buñu xamone xamoon ne titre la ay borom tol duñ ko occuper ba samp fa seeni mango def fa seeni keur kon Mansour bu ne maire def na superposition et c'est grave mais mom ni mu ko xamulé mhm. non la ko maire xamulé et maire dans sa dynamique moy nit boo ne maam moom sama tol mhm. da lay defaral ki jox la. ci biir titre bobu amna ay délibération. ci biir titre bobu amna faut pas le nier. mais dans l'optique du optique ou mauvaise intention. Mhm. dans l'optique de mhm. mhm. ni ko Le titre bi après. ni comment sur non la maire xamee keneen la ko maire bi mu ko le def délégué qui yor litige ci mairie bi Gabriel bob mu def mission dem fa. d'accès de village mu ko titre bi kon un plaidoyer ànd kook mairie bi. Mhm. pour ñu xex titre bo mu des ci Sagnafil. mais le le du problème nga nan amna délibération fi amna toll fi amna et parcelle fi mais parcelle yoy amna na existé mais dañ ko jox seen borom. dernière question hein. bu ñu ci filfili. Ah, waaw waaw bu ci filfili. c'est la même chose. Mm. le conservateur foncier. Mm-hmm. de Rufisque parce que filfili. waaw ah. titre foncier c'est dans les années 60. Mm-hmm. boobu temps Dakar Rufisque mo yoré fi mm-hmm filfili am titre foncier bo xamné 400 hectares la def ni état du Sénégal bi mu soxla jaarale train bi rail bi dafa dem ci filfili filfili jox ko mu ngi nii noté nañ ko ci ci ci bi ci ci droit réel bi état du Sénégal bi mu bëggee implanter les suppresseurs d'eau là, manam forage yi ndox mi pour mu dem Dakar SONES dafa dem ci ci ci filfili filfili dagg jox ko

mais bu ñu demee ci receveur kii euh, euh, conservateur. Mhm. conservateur droit réel bii la joxe. Mhm. et droit réel bi boo ko 400 hectares moo ci nekk mais Filfili buy def descente am sur le terrain mhm. dala naan sama titre foncier ñëw na ba usine glace sama titre foncier comme ni ko maire waxee woon gars yi di rey sa bopp ñëw na ba ci mairie bi. mais loolu waxam la. waxu kan la. waxi Filfili la ndax yéen teg ngeen bët titre foncier pour Philippe Oui mais c'est pas c'est pas. <laughs> Hmm? Ablay, oui buñ la droits droit réel sur un titre rek c'est l'existence du titre. c'est 400. 400 hectares hectares 400 hectares. 400 hectares Mon ngi mon droit réel maintenant. Philippe vous ne sama tol egg na ba mm-hmm. il doit y avoir une confrontation. Mm-hmm. na le plan. non. Ah. génne titre foncier bu adapté plan bi mu yor. Mhm. ñu vérifier ko avec les services techniques. mais mais génnewu ko léegi. génnewu ko ba léegi maintenant léegi loolu problème boobu juddu noonu. waaw waruñu waruñu tasaare xeex bi ñun ñëpp nañ ko séq. maanaam waa ànd defar kër Moussa. ànd defar kër ma Sam Moussa moo meel mairie bi ñun mhm. ñëpp nañu ànd xeex ko parce que lii. Mhm. ñun ñëpp ci war a ànd xeex parce que du lu ndaw. Ben nit bu béro feulé rek xeex ko. Mhm. mënu ci dara. Mhm. kon li titre foncier bi il faut que toute la commune l'ensemble des couches confondues mhm. nek ben un bloc xeex ko ba nga xamné tay tey li filfili di wax ne moo ko moom te ñu léral ko. delloo ko population yi. am nga deux heures temps déjà mais loolu bu ñu nee maire maire maire maire. benn question ah. jeex nañu euh, bi na ah, am na benn lotissement bu am ci côté euh, sën sën ah. ñu fay wax lotissement boobu noonu. sën wolof sën wolof oui. am na am na na ñu wax ni euh, bi nga xam ne si moom ngeen di joxe arrêté dafa dafa non non non lotissement suun wolof. suun wolof waaw. suun wolof suun dama jëm ba baat es bi laay jëm waaw wolof non non non attendez. suun wolof excusez-moi attendez Tay, bu ñu la defalee arrêté ministériel. waaw. ça ne veut pas dire que vous, deux ans yi ëppee dafa kaddu déedéet loolu kaddugul. Hmm. ñun nous nañ en réunion à la sous-préfecture gars yi posé ko le receveur des domaines ne déedéet kaddugul de hmm. benn le problème c'est très sensible ah naruma ci wono dama ko off <laughs> sunu wolof dafa un village administratif. Ah. mais la réalité moy càmbox moko dalal dafa sensible quoi ci wax moko dalal. ok c'est entre serrer et wolof. Mhm. japonais mhm. sunu wolof bu menez am 98 hectares lolou tay na et nous, ñu japp

dem nañ fa réunion maintenant comme am ngeen fii 98%, nous nañ def état des lieux. Mhm. lu càmbox moom ñu bàyyi lu wolof moom ñu parce que comme suñ wolof nangu na wolof noonu lañ ko réglé la très bien kon euh, temps bi question yi baal ma dama la jox kàddu gu rek question mais dinaa la ñaan ñu mhm. euh, ba grand rendez-vous incha allah ñu indiwaat ko. ba bàyyi la waaw bala may tàggatoo lenn laay lenn laay wax c'est très important ñun ñëpp ay politique mm-hmm. ñun ñëpp mm-hmm. parce que politique c'est l'art de bien gérer la cité mais fa wax ba jeexale mooy il faut nga am foo far mm-hmm. far nag dafa metti président Diomaye dafa ñëw Kër favorable ci maire favorable maire. mais ay le fait que ñu maire vraiment wax mhm. pour sa municipalité mais defaluñ est-ce que jox ko parcelles c'est normal tel tel tel tel tel. Mhm auparavant ñu ne ñoo ko séddoo na ci mo def ni maire la da ngay dugg ci àll sax ñu ne maire la mo and ak gaay mhm. président ñew sétal ko bu mu set wécc quelques semaines après rek gaay def conférence de presse def point de presse wone ay ki ne maire yi ay problème am la dañ ci wara ki té pourtant yooyu yëpp moom la wax légui ni ci émission bi mhm. dara wu ci maire maire daal tak ci laalawu ci takku ci laalawu ci maintenant mhm. dans l'ensemble des courses confondues ma jital ci Pastef changez votre physique d'épaule tay ñom ñoo nek au pouvoir bañ am débat baña am euh, manam di wut contenu politique warul tax nga koy sorti ci kaw maire et vous vous avez du pain sur la planche am ngeen liggéey bu doy moy nan ngeen di def ba élection bi nga xam ne mooy seen élection ngeen gagné ko. mais élection bi le Diomaye président Bassir Diomaye fay gagné élection am la moom def les stratégies et les moyens gagné nako mais Pasteur, nous vous donnons rendez-vous. <laughs> on va vous gagner et on va vous démasquer. <laughs> wow très bien et dinañ président c'est une ah. élection bi au niveau local. Mhm. nous, nous ko gagner Moi, dina vais gagner haut la main.

man nawuma journaliste bu au sommet. Mhm. man un ma Ablaye Gueye sama xol day sedd. Mhm. bu aljuma damay contane mhm. gisuma yu ah. Ah. non non esprit lay mais vous. background bi nek ci qualité bi ne ci man nawuma ku ne ci kawam ah. man buma RFI parce que vous faites un travail très excellent bo xam tay buñ len jappalé touti rek. Mhm. bon yéenay raw télé yi ma gis foofu vraiment je vous remercie. merci na ci yéen. et toute la population de Kër contane na ci liggéey bu rafet bi ngén di def. merci beaucoup jërëjëf Ablaye Gueye Baye tagato jërëjëf merci beaucoup euh, Mustapha Djiba Ndiaye. Uh-huh. merci beaucoup. Ibrahim Assis mhm. merci beaucoup say supporter yi nga xamne ñoo nek ci public di jema jubilé ñu ngi leen di jajeufal ci wuy ci bi nga xamne wuy ci ngeen ko ci euh, mhm. appel moy association de la presse locale pour mhm. commune bu Keur Moussa bu def nañ fi waxtaan bu am am solo soulevé nañu ay points yu bëré bëré bëri li nga bëggoon teunk té moy mo nga bëggoon feeñal wane ni lepp lo xamne ne joxoñ nañ ci le maire Momar Sis moy maire de la commune Keur Moussa wax nga ni di laalewu ci takku wu ci ñeneen ñi leen dut baram am ñu ay preuve mhm. ñu ngi xaar beneen yoon parce que mhm. euh li waral émission bi bokku na ci li tax ngeen gën ko sàkku moy def réplique par rapport ak plusieurs attaques yi nga xamne defon nañ leen ko mhm. ñom andi nañ seen version yow tay ji andi nga version li ci dess moy population bu xol ban wax mo gën a yeeyoo nopp boo xam mën nañ ko japp comme deug lolu mo dess nañ ci am yeneen émission ñu dalal leen ngeen def ay débat de confrontation des débats d'idées ngeen ñu tok waxtaan pour lan intérêt Euh, population bu Kër Moussa. donc fi ñuy wax dafa am ay points yo xamné dafa précis dafa sensible. dafa am ay questions yo xamné ne du question de politique du question de may maire du question de may opposant da ngeen ko wara taxaw régler ko pour le bien de notre population. te fofu la leen di xaré yeen ñëpp ngeen am esprit de grandeur mën a waxtaan. jéem a faj li nga xam ne ay lënt la ci bopp askan wi ngeen leeral ko ba mu leer ci boppu askan wi waaye du faj faj boobu ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci ouverture d'esprit bi di jaajëfal Moustapha Adjuma di jaajëfal ñu doon suivre émission bi ci presse locale bi yëpp muy KM TV euh, muy euh, Kooma TV maanaam KM ñaari KM la quoi ak Kër musa mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñooy waa Palo TV ñu sant ñëpp gërëm ñëpp mm-hmm. di leen jox dig daje beneen rendiku vous ci grand euh, ci grand rendez-vous ak beneen invité allah mm-hmm. nga baal ma ma jaajëfal sama waa ji authentique. <laughs> authentique waaye <laughs> ci ginnaaw. le port de la <laughs> jërëjëf Abdoulaye Guèye jërëjëf tamit suñu gan gi comme ni ko Abdoulaye indee remercié ko mu baax a baax euh, Ibrahima kër gi fii seen kër la appel yéen a ko moom Kër Moussa la ñuy taxawal jamono bu nekk taxawal ñëpp na mais rawat na fi nga xam ne fi lañ bokk ndax dañoo ni fii nag bi di dee fa la dret di ëppee te loolu mooy dëgg moo tax euh, boo xoolee daanaka bi ñu commencé ba léegi ay Kër Moussa la jël ñu waxtaane euh, li nga xam ne mooy li xew ay xew yoo xam ne mën nañ ko waxtaane tey nag euh, côté Médina ñoo ñëwoon aussi ñu gën leen tàllal loxo ñu gën a ñëw ñu waxtaan euh, pour loo xam ne njëriñu euh, Kër Moussa ñu leen remercier baax a baax a baax remercier ñi nga ah, ànd nañu ñëw nag supporter ah, comme ni gars yi waxee supporter la <laughs> war kontaan nañ yàlla yàlla mottali bu baax a baax a baax waaye di remercier nag équipe bu appel yëpp nag ah, kenn desul bàyyi taal tey su ma ko tuddee moom day coupé caméra yi di ko baax ak Barham moom ti aussi y' a Assou Ndeye Assou ñëpp ñu ngi ci ginnaaw ak Ibrahima yaakaar naa ñu ngi biir euh, ak bu ndaw ñëpp ñu ngi ci ginnaaw pour fexe rek liggéey bi mu mën a euh, yem a mat remercier a baax Abdoulaye Gueye ci pertinence ak euh, taxawaay bi waaye a a solo tey jii nee na moom chaque chaque ñu ñëw ci jàpp même invité yi ñu leen solal ndax ñu wane aussi suñu suñu Kër Moussa am nañu li te yéen mën def lu numéro 76 85 82 76 830 85 82. xam ñu ko sant baax baax di gërëm ñëpp nag dinañ jox di ci numéro numéro 4 lay doon ci beneen euh, invité ak ku mënti doon ñu leen xaarat ci euh, grand rendez taala wa